fa ñu jëm bu ku xool li xew démb xam ni dossier bi dara amu ci amul benn li ñuy wax élément constitutif de viol début de preuve sax amul ñépp gis nañ ko defe naa li gars yi naan fen di bi jaaw tey jii Sénégal yépp xam nañ ni ay caaxaan la teewut pexe bu ne ñu ngi koy ut pour jaaree ko ci justice pour foqati ab condamnation fi mu ne nii porox ndool la ñuy wut façon pression bu nekk dinañ ko def ci juge te ñun Sénégal la ñu dëkk fii relation yëpp xam nañ ko kan moo bokk ci ban club xam nañ ko kan la ñu jëlee fan indi ko fan xam nañ ko kan la ñu tànn ci ban anam xam nañ ko moo tax nag ma dellu si si ma waxoon léegi dossier politique politiquement lañ koy régler moo tax ma woo Sénégal yëpp ñu jóg takku tay la suñu marche vers le palais commencé tay la suñu wala suñu phase terminale marche vers le palais commencé incha rabbi nañu gëna a dëgër gën a suñu ndigg ak sénégalais bu mu doon même bo nekul membre passif waye rek nga bëgg réew mi ta bañ injustice yi ñuy def ni waroko ko nangu ndax tam dinañu sétane lo xamné ne tôt ou tard bu ñu amee lu ñu bëgg ba ci opposition bi nag ñi ma ko bokkal mu leer ni Macky Sall bu amee li mu bëgg ci Ousmane Sonko dina jafe torop mu am leneen lu ko të ndax loolu la yàlla dogal def na ko defaat ko mu yomboon loolu ci moom yàlla dogal bi mu egsee ci ñun la jafe ci moom mu jàppal ñu ko nag benn en boo xam ni ndax jàpp na ni moom. Euh, xalon na yoon woo xam ne ay waxu troisième mandat yooyu yëpp formalité lay doon ci moom mu yegsi ci ñun nag ñu doon dangar gi nga xam ne moo ko tëbalee ji moo tax mu def ko mbir personnel ne faw rek ma def lu ma def ko lu méttee méttee métti lu nit xalaatul lu métti rek naa ko teg loolu nag dafa interpeller chacun et chacune ci ñun sénégalais yi ànd naag Ousmane Sonko ànd maag moom amul solo. mais ku seetaan lu dul dëgg ba mu raw buñ ci paree ci fi gën a dëgër buy dal sa kaw dina la bett te doo ci mën dara réew mi justice lañ fi bëgg réew mi jàmm lañ fi bëgg te justice mooy indi jàmm réew mi tolloole nit ñi lañ fi bëgg réew mi bañ bàyyi di jël li nga xam ne dénk nañ la ko ci doole nguur di ko dalal di ko dalee ci kaw nit ñi loolu dañoo bëgg mu jóge fi gannaaw yàlla ma baamuwaat ko gisuma ci aduna luy dund lo xamne mën na détruire Ousmane Sonko ndax lima défar ñom xamuñu ko borom bi la motax tax may soññaat ñëpp di wo ñëpp pour ñu jóg jeunesse bi ci yéen lay doore lu ne ñu ngi koy def nak pour détourner leen façon parade bu nek ñi ngi out façon influenceur bu nek pour que ni mën na leen détourner jeunesse bi waaye gëm naa ni am ngeen conscience ni seen avenir ngeen joué du Ousmane Sonko man nu mu tuuti tuuti li ma am ci àdduna am ko te avenir nous sommes à 8 mois juróom-ñetti pour ñu jël yor ko ci kenn ku de ni Afrique fi te mus musuma leen wax lu dañ nag lu ma leen mus wax gis ngeen ko kon su ma leen ne lii dinañ ko def ngeen war maa gëm ndax gisuma lu ma ko jaral ci àdduna man alal daw taxumaa daw tur taxumaa daw daraja taxumaa daw waaye liggéey ngir yàlla rek lay doon sama satisfaction mooy liggéey ba Sénégal yëpp ne waaw góor ma dellu toog fi ma toog keneen toog continuer liggéey bi waaye du dara lu ma ci ut ci alal wala yu demee loolu bàyyi nañ ko yenn politiciens yi kon c'est pas le moment de baisser les bras Yaw ndaw sama jeune ak fo munti nek muy artiste bi muy artisan bi muy kenen ak kenen étudiant bi élève bi kep ku munti don transporteur bi baykat bi napkat bi yaw sama ndaw rew dama la talal sama loxo ne la dama bëgg ñu jaayante ci defar rew mi pas jaayante ci sànnil naa ko carte rek waaye ñu jaayante ci defar réew mi définitivement yow euh, euh, sëriñu daara yi walla nitu daara yi de manière générale yow transporteur bi yow keneen ak keneen ak keneen ndax ku rek juum maa ngi dellu tàllal leen loxo di leen woo ci mobilisation exceptionnelle Macky Sall na dellu gannaaw ci lii mu nekkee lu ko moy nañu jaral sax ñu ñak lepp waye nañu taxaw jàkkaarloog moom jàmmarloog mom li lañu bëggoon waxtaan ak yeen di leen wax ni bes ni ki ëlëk gën sa gudd gënaaw ëlëk bu soobee yalla dinañu door delu ci ci dakaru ñun ñëpp nañu waajal dakar ndax fa la mbiri di amé delu jaale ñi nga xamni ñak nañ ci nit te mo jeex ci Sénégal waxat nak tamit ni war nañu taxaw tembe bañ ñu jappati suñu nit ndax ki di Macky Sall su lambe mu a du delu gannaaw day continuer di continuer Japuji ji bëri na te tegul ci yoon te kenn muccu ci ku bind article sax ñu jël la tej kenn muccu ci kon dañu tak suñu ndig ndax li wessu na dictature legi dañ doon wax dictature rampante waye dictature bu fess gann la ñepp diko gis kon nañu tak suñu jamarlo jàmmarloog Macky Sall bu xet bu delloo see xelam xamni ni rew mi donn ko ñun ñep ñu mayante jam lu ko may buñu gendarme fess fees ay gendarme moom fees suñu bët buñu ay policier am fees suñu bët ay nit lañ ñuy ay nit te gis ngeen biñu taxawé ni ñu waron taxaw mois de mars fi mujjé kon ma ngi wo ñep ci ñu jog taxaw gëna tak takk ndigg farlu di sante sénégalais nak ci sen soutien façon message bu ne mang koy jot mënuma tontu ñep di len sante ci sen soutien ak seen kóolute ne len nak lepp lo xamné mang ci doon def temer fascinat ci def téeméer fi mu togn kon ñu ngi di di sant asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh